waaw mais bon comme ni nga ko waxee <laughs> mbirum ONAS xam nga bu xoolee ba seetlu donc euh, pratiquement euh, Thierno Alassane Sall. Mhm. la République des valeurs ñoo si njëkk caw. gis naa ne temps yi moom am na ñeneen <laughs> politiciens <laughs> que même des parlementaires aussi ñu ngi bëgg approprier wu mhm. maanaam mbirum ONAS bi donc ça veut dire que ñun depuis le début donc gisoon nañ maanaam li olof Ndiaye di wax li li raam bi xaw ma raam bi di ñàkk xaw ma xaw ma raam bi voilà c'est ça donc on avait déjà senti euh, voilà li nga xam ne bon tegul ci yoon ñu dénoncé ko donc euh, Thierno defoon fi benn tweet donc euh, boo xam ne donc pour maanaam comme ni mu ko yàggee di def donc en bon républicain donc pour dénoncer li nga xam ne en tout cas moo xew au niveau de ONAS donc mu nekk loo xam ne scandale boo xam ne donc dëgg yàlla dafa laaj Sénégalais yi ñu xam ce qui se passe parce que mbir mi euh, bon maa ngi dugg ci forme fond bi mais mbir mi daal li ñu mën a xam mooy mbirum guerre am na ci mbirum corruption mbirum euh, maanaam ay marché yoo xam ne dañ koy joxe ci ay conditions yoo xam ne lu kenn xamul ci jamono bi ñu toll boo xam ne tey dañuy wax dañuy wax rupture euh, systémique ah ne dañuy wax jub jubal jubanti ñu gis ne que li fi xewoon li ñu doon xeex démb daanaka pratiquement moom la ñuy gisaat affaire bi jaaxal ñu. jaaxal ñu donc euh, moo tax donc naa euh, ñu ko daal mooy daal mbir mi daal ñun dañoo jàpp ne daal euh, dafa mel ni li fi newoon daaw daal li fi nekkoon démb mooy mooy continuer di fi am donc moo tax ñuy alerter donc pour que li nga xam ne moo fi lañ fi digoon waxoon ne dañuy def rupture mm-hmm. ah jub jubal jubbanti donc donc li nga xam ne mooy xaalisu askan bi maanaam nos deniers publics dañ ko war a teg ci yoon donc ko defee donc xel yi mën a bañ a bañ ñaaw daal voilà c'est ça. d'accord Seynabou am question ah, euh, damay ñëw directement ci ci ci plainte bi ndax wax na ko léegi Thierno Alassane déposé na plainte comme ni nga xamante ni am na député yoo xamante ni ñoom dañu préféré daal di def euh, demander euh, mise en place d'une commission d'enquête parlementaire. ñoom tey ñu daal di dem euh, def euh, plainte ndax dafa am ñu ma si jëloon di ko laaj tax ma soulever question bi dafa am ñu ma si laaj ñu ni au fait ñoom li ñuy ragal si plainte bi mooy affaire yi daal di xaw a yéex yéen est-ce que yaakaar ngeen ni tey jii nii autorité yi au fait euh, le procureur dina si investir ba tey li ngeen seen initiative bi am fu mu fu mu mujjee tey. bon merci euh, Sénébou pour euh, par rapport ak question bi euh, donc mën ma la jox ay assurance parce que bon question de choix la woon <laughs> am na ñu bëri sax ñuy eh, laam-laame ne Thierno Alassane Sall député la pourquoi choisirul la voie parlementaire. Mm-hmm. donc léegi muy dem au niveau du procureur. bon d' abord du ñu waroon comprendre mooy euh, au moment des faits donc assemblée bi daanaka dañu nekkoon session bi dafa tëjoon. Mm-hmm. donc la session était fermée et puis aussi euh, li ñu war a mooy même fekkente ne da nga saisir aussi la voie parlementaire euh, mucc mucc bi mooy procureur lay mujjee. parce que bu parlementaire yi defee seen enquête ba pare bu jëlee mbir mi jébbal ko procureur ñoom seen liggéey day jeex donc ñu on a préféré prendre un raccourci dañuy jaar ci assemblée ñu def ay enquête ak muy jël ay temps yu demee noonu bu paree dem ci procureur bi on a préféré saisir le procureur comme ni ñu ko defee woon euh, boo leen fàttali ko <laughs> ci élection présidentielle yi le cas Karim Wade donc euh, on avait saisi aussi les autorités judiciaires et bon voilà jox ñu raison action bi ñu mën a woon parce que ñun lépp lu ñuy def dañ koy teg ci ay textes lañ koy def ci ay lois ci ay principes ay valeurs donc euh, donc moo tax euh, bu ñu xoolee mbir mi gis ne que euh, am na ay jalgati yu bëri yu si nekk loo xam ne dëppoowul ak yoon ah, mu am ay maanaam ay accusation yu grave yoo xam ne dafa jóge ci ñaari parti yëpp ah ah kii di directeur bi mooy euh, Cheikh monsieur euh, Cheikh Cheikh Dieng qui voilà surtout Cheikh Dieng bi nga xam ne dañ ko limogé et son de tutelle mooy le docteur euh, Cheikh Cheikh Tidiane donc kii di wax lii kii di wax lii ku nekk bon ki naan yaa def lii ki naan noonu defuma lii waroo woon def lii donc situation bu noonu ñun en bon républicain dañu jàpp ne que comme suñu affaire xaalis la parce que <laughs> c'est des centaines de millions voire des milliards loo xam ne suñu suñu xaalis la donc dafa laaj ñun en tant que républicain te ñàpp nañ nag dans un état de droit ñu saisir donc procureur à charge pour moom maanaam mu leeral mbir mi ñu xam exactement fan la dëgg bi nekk. waaw parce que mbir mi dafa doy waar. dafa doy waar boo ko xoolee eh, li fi nekk buñ ko plus ñu koy gistu plus ñuy dem. ñuy xam ne que mbir mi dafa am yu graaw yoo xam ne parce que euh, damay jël benn cas exemple bu ndaw euh, parce que mënuñu comprendre euh, que aujourd'hui directeur ONAS. def benn appel d'offre joxe benn marché jox ko ñaari société boo xam ne appel d'offre bi ça a été agréé par organes yi nga xam ne ñoom ñoo ko war a ñoo ko war a valider moi maanaam l'ARMP ñoom ñu valider ko donc euh, et que ñu commencé di exécuter marché bi xëy xëy suba ministre woo ko ne ko bon dama bëgg ñu nga dakkal maanaam contrat bi nga xam ne moom nga jox ñaari marché yi benn deuxièmement ministre bi lu muy def dem négocier moom ministre buy négocier un marché c'est du jamais vu négocier at tant amul appel d'offre amul dara jël ñaari entreprise yoo xam ne daanaka depuis Mathusalem ñoom daanaka presque tous les appels d'offres ñoom ñoo koy am maanaam notamment euh, Vigas et Delta mu woo directeur bi ne ko damaa bëgg léegi nga dakkal marché bi nga jox ñi nga xam ne dañoo soumissionné teg ko ci yoon nga dakkal ko jox ko ñi nga xam ne man ñoom laa choisir mais loolu mais xamul fenn mais lan moo lan moo waral loolu. déjà bu fekkee dañuy xool ONAS mu bindoo ONAS entreprise la boo xam ne loi moo ko créé te loi bi bi ñu koy créé en 1996 c' est le décret numéro 96 662 du 7 août 1996 mooy wax ONAS nan la war a doxalee mode de fonctionnement beeg directeur bi ñu koy choisir rek autonomie financière beeg yooyu. ne ko yow y a deux tutelles ñaari tutelles la am kenn ki mooy ministre de l'hydraulique ak keneen ki mooy le ministre des finances donc lépp dañ ko teg c'est-à-dire que maanaam décret bi dafa organiser ONAS de telle sorte que tey gisuñu fenn foo xam ne décret d'application wala loi bi nee na ministre bi de tutelle am na sañ-sañ ne dafay dakkal benn marché boo xam ne dañ koy exécuter pour moom ci boppam mu sànn marché yi nga xam ne ñoo ko neex entreprise yi ko neex pour ne ko bon léegi ñii laa bëgg ñu doxal marché bi loolu c'est déjà un scandale beneen aussi wax nañ ne dafa am ay problème de surfacturation yoo xam ne jusqu'à concurrence de deux cent millions loo xam ne ministre yi ñoo ko constaté kii ne non effectivement surfacturation amu fi parce que <laughs> li fi amoon mooy marché yu njëkk yi dañu daan def gars yi dañu ko exécuté maanaam boo gisee njëg bi gënoon tuuti par exemple benn marché boo xam ne quatre-vingts millions la woon yóbbu ko ba deux cent millions maanaam muy expliqué ne de quatre-vingts millions yi ñu joxe. maanaam entreprise bi nga xam ne moo soumissionné dañ daan casser prix yi di casser prix yi lii yëpp ndax lan parce que xaalis bi en réalité au lieu ñu dugal ko ci marché bi maanaam assainissement bi mooy curage bi régler problème mu fosse yi problème inondation yi maanaam jafe-jafe yi nga xam ne moom la ñuy xam ci affaire inondation yi demee noonu mais xaalis bi dañ ko doon jël di ko pàccoo dañ ko doon séddoo loolu la ministre bi wax maanaam directeur bi je donc si conditions yi mel noonu mais loolu c'est extrêmement grave donc su fekkee ne da ngay def appel d'offre mu am ay entreprises yoo xam ne ñoom dafa mel ni daanaka ñoom kese ñoom ñooy am marché yi ñoom laal mooy notamment Vigas et Delta. mu mel ni qui se cache derrière ces entreprises. mais c'est mais justement mais loolu moo tax ñu déposer plainte. Mm-hmm. parce que jàpp nañ ne que procureur bi il est mieux outillé que ñun. ñun li ñu mën a def mooy dañuy dénoncer. gis nañ loo xam ne xew maanaam y a des faits des accusations yoo xam ne taxaw nañu donc ñun suñu devoir de citoyen aujourd'hui mu mooy lan mooy ñu saisir le procureur de la république pour mu mën a def ay enquête pour ñu xam exactement ñan ñoo nekk derrière ces sociétés parce que <laughs> li wëtte wër mooy Vegas et Delta am nañ doole boo xam ne sañ-sañ boo xam ne tey jii en 2020 Cour suprême jëloon na benn arrêt en date du 12 mars 2020 pour demander à ONAS ñu résilier maanaam contrat yoo xam ne dañ ko joxoon Vegas et Deltas parce que en fait ce qui s'est passé mooy dafa am beneen entreprise boo xam ne ki s'appelle euh, euh, comment s'appelle euh, euh entreprise bi ñu s'appelle euh, voilà Velgas je pense bien donc dafa saisiroon maanaam le comité de règlement des différends pour ne leen en tout cas marché bi ni ñu ko attribué dëppawul ak yoon mu daal di cité ay manquements yu grave yoo xam ne ba nga xam ne waa comité de règlement des différends parce que organisme la boo xam ne comme bu ndaw la bu nekk biir ONAS bi ñu jëlee bi ñu waxee loolu ñu ne donc li nga wax dëgg la ñu daal di marché bi bi nga xam dañ ko joxoon ñaari entreprise yooyu mais bi ñu jëlee décision annulé marché boobu ONAS au ñu appliquer décision boobu non dañoo continuer di appliquer cest joxaat marché bi ñaari entreprise yooyu ñu continuer di doxal. muy Vigas ak Delta boobu. Vigas ak Deltas. maanaam hmm. des différends li nga xam ne décision boobu ñu jël. Hmm. benn entreprise bi nga xam ne. moom moo defoon recours bi mu xamee ne que ONAS exécuté wul décision bi mu daal def benn recours devant l'ARMP. ah l'ARMP. Mhm. ARMP aussi jox ko dëgg ONAS exécuté wul décision bi ñu bàyyi Vigas ak Deltas ñu continuer di exécuter marché bi lan la entreprise bi def dem saisir cour suprême cour suprême jël benn arrêt en date du 12 mille 2020 demandé pour de annuler marché bi. mais gars yi ba tey bi ñu ngi continuer di marché bi ça veut dire que aujourd'hui ce qui se passe mooy ñun loolu moo xawal lëndëmal suñu xel yi mm-hmm. mooy ban sañ-sañ le Virgas ak Delta am ba tey jii non seulement bu ñu defee soumissionné ñu jox leen marché yi deuxièmement fan la ñu téye daal mais fan la ñu ñoom ñooy gagné marché yi ñooy ñooy quitté kenn amul sañ-sañu dindi dindi ko seen loxo te li gën a garaaw sax mm. amoon na benn rapport d'évaluation boo xam ne dañ ko defoon rapport bi mi ngi fi au niveau de ONAS pour ne ñaari entreprise yi dañu défaillante maanaam liggéey bi xam ne nañ leen joxoon respecté wu ñu normes yi. jaar nañu ko ci yoon. moo tax tey jii. maanaam buñ buñ la liggéey loolee ne la war a war nga def lii yow peut-être cinquante pour cent yi ngay def wala soixante pour cent yi mais en tout cas doo def li nga war a def yëpp quoi parce que da ngay laaj xaalis bu néew. pour écarter les autres concurrents pour kii. loolu la ñuy wax dumping. en tout cas dumping mooy da ngay casser prix yi pour éliminer yeneen con yeneen concurrents yi. parce que bu fekkee ne affaire dañ ko teg ci yoon. Mm. prix yi nga xam ne moom la Vigas Delta di di joxe mooy dënt di casser prix yi amul benn entreprise bu ko mën a def joxe na ay exemple leer comme par exemple curage wu canal bi nekk au niveau de la zone. zone de captage. Mm. wax na fa ay plus de 1500 camions yoo xam ne dañ leen war a chargé. Mm. yóbbu leen ba bës.